salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu في كل سير وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر yi nga xamante ne saa su nekk yéen bàyyi xel seen télévision bii di Mafatihul Bichri TV international ñoo ngi santaat sunu borom subhanahu wa di julli si sayduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam di ñaanal saa su nekk Serigne Mountakha Mbacké Bachir mu yàgg fi daan ak wér di ko ñaanal sëñ am ni mu Moustapha Fall moom sëñ Modou Mbenda noonee lañ koy ñaanal njabootu sëriñ bi mbooleem kilifa diine yi ak mbooleem kilifa aada yi yéen mbokk taalibe yi xam ngeen ne tey le bisub 18 sabar di bis bi nga xamante ne sëriñ bi ku nekk dégg na wax yi nga xamante ne waxoon na ko ba tax na jullit yi rawatina murit yi ñëw si dëkk si tedd bi fas yéene sant la sëriñ bi comme ni mu ko bëggoon moo taxit seen télévision Biss TV incha allah fas yéene ànd ak yéen xool mbokk taalibe yi ak li nga xamante ne moom la ñu moom la ñu fas ak li nga xamante ne mooy seen bëgg-bëgg ak li nga xamante ne mooy seen ressenti ndax boobu ba tey maa leen di wax mbokk taalibe yi jóge nañ si ay gox fasandikoo si euh, région bu nekk ñii Saint-Louis ñi Matam ñi podoor ñii Diourbel ñii Dakar ñii Cees te ku nekk ba nga màggal see da ngaa ñëw fas yéene siyaare kenn si ki nga xamante ne moo si buntu soit moo kenn si doomi Sëñ Tuubaa wala kenn seex yi waaye waxtu bi gis ngeen jumaa ji animé na ndax ñu ngi si suba si màggal gi gis ngeen barab yi commencé na animé euh, ak ay nit yi nga xam dañu ñëw siyaar lu mel ne barabu sëñ Saal bi gis ngeen jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi foofu di siyaare barab sëñ Abdou Khadre barab sëñ Moutala sama ginnaaw nag mooy barabu sëriñ bu mag bi ndax xam ngeen moom mee moo woote màggal gi wante am na ñu bari dañuy ñëw màggal ak lu mu xat xat xat dañuy jaayante jéem a bugg di siyaare li nga xam moo di barab sëñu mag comme boog sëñ Xaadim dañuy ànd xooli mbokk taalibe yi seen ay bëgg-bëgg seen i gis-gis seen i yëg-yëg si li nga xam mooy màggal Touba rawatina bara bi ñu nekk mooy jumaa Touba sëñ Xaadim bismillah. Euh, man Daouda Dione. sëñ Daouda fan nga jege ñëw màggal si. maa ngi dëkk dëkk bu daan xombal. Euh, ñaata at ngi ngay màggal si màggal Touba. yaakaar naa su ma fàttalikoo depuis dix ans ci maa ngi ñëw Touba di màggal. macha allah ñu ngi la fekk si euh, buntu barabu Serigne Saliou Mbacke da ngaa siyaar ba noppi. waa def naa sama siyaar pare waaw. loolu ñu mën a wax si Serigne Saliou. sëñ Saliou moom maanaam day kenn ci ñun ndax jëm la yoo xamante ni amuñu sago ci moom ndax sëñ Saliou dafa nekk jëm joo xamante ni dafa fees ci suñu xol boo xam ne mënuñu wax wax ci moom lu bari ndax dañoo dimbali ci lu bare bare bare bari kenn du sëñ daal ndax boo xool ndaw ñi sëñ Saliou la ñu gën a riir jëm ndax sëñ Saliou lu mu def ci ñoom la kon nag ñun sëñ Saliou bés bii bu tee bu teroo amuñu benn yitte bu ñëw teew si ñëw def suñu siyaar yëpp magal gi nag maanaam di dix ans ñu ngi koy def mais chaque année day gën a neex. waxtu bi yaa ngi toog buntu barabu sëñ Saliou la nga yëg sa xol nii. mbégte rek ak xol bu set xel mu dal ak kontaan gu wér na xam sëñ Saliou daal def na ci ñun loo xamante ni amuñu payam. lool lool lool macha allah kontaan nañu baax sëñ bi xëy na dañu mënut wax lu bari mais dañoo xaw a am foo ñu bett mais nag mais nag bu nu bu nu gën a yaatu dinañu gën a yaatul baax ci sëñ Salim jërëjëf. waaw li may yëg mooy sëñ Bamba daa amul morom te kenn du moom wax dëgg neex yàlla bisam bii lu ci waaye ñaan yàlla na borom may. ndax def na fi loo xam ne kenn defu ko waaw yàlla ko suñu borom dimbali moom mi am ndimbal tey dimbal doomu aadama yi lim nu defal na ni sëñ nañ ko te yàlla moo ko yan ñu yanoon xubbi ak samaani lax daayee moom la yanoon nangu ko bu liggéey na liggéey bu rëy si toolub sëñ Bamba yàlla dogal na sëñ Bamba dane boo dama ba gisatoo ma xamal moo fi ne kon nag loolu dinaa ci am mbégte bu baax ndax kii mooy Serigne Saliou borom xel kom borom defal bu bam jax yaa ngi waajal di dugg si barab bi nga xam moo di barabu Serigne Saliou waxtu bi lan nga yëg sa biir xol bare bare bare Serigne Saliou dimbali ñun tamit dimbali ñu bare ndax sinon ndeysaan xol bi daal fees daal daf ñoo daf ñoo suturaal daal suturaal nañu bu baax a baax barke sëñ Fallou sëñ Xaadim xam naa ñu xool yeneen mbokk taalibe yi asalaamaaleykum sama sëriñ nanga def sant yàlla bu baax fàttali ma tur bi euh, sëñ Modou Kassé sëñ Modou yaa ngi dégmal barab bu tedd Serigne Saliou Mbacké loo ñu mën a fàttali si jëmmam ji ah euh, sa jërëjëf sëñ bi ah di kontaan trop daal mu bégte di santaat yàlla bu baax di julli ci Yonent bi di sant suñu waaju baax Xaadim Rasul waaye di sant Serigne Saliou ndax dafa fekk ñu tolloog suñu jamono ñu ah, kii daal moom xam naa ne mun ma wax ci moom ndax lu waay war a wax ci moom lu ma mënu ma koo expliqué daal ndax ndawalal guddi la kenn ku nekk da nga jàpp ne bu ko dee bu ñu da nga kañ yor yaa nekk waaye jëmm ji baa ngi dem rek yal na yàlla tas ci barkeem amiin amiin amiin yal na yàlla tas ci barkeem amiin fi bàyyi yal ci suñu borom teg loxo amiin amiin bëgg nañ daal. jërëjëf sant nañ baax. asalaamaaleykum suñu baay na ngeen def. yaa ngi fi sant fàttali ma tur bi. Moussa Samb laa tudd. Baye Moussa yaa ngi ma yaa bu tedd. muy barabu Serigne Saliou waxtu bi lan lan nga yëg sa xol nii. waaw xanaa xol bu feex rek. bu sedd guy. rek di ko ñaanal rek sama boroom yokk ay leeram. Mm. te bar sax dama nekk. waaw di ñaan tamit suñu boroom yàggal ñu fi guddal fan yi wéer a cër yi darje Seexul Xadim suñ suñ ci baara lañu am billaahi mun wax rajo na ndax sama xol dafa gaaw a tooy ci lu mel nii waaw billaahi jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ xool suñu baay salaamaaleykum asalaamaaleykum sama serin na ngeen def fàttali ma tur bi Alaaji Topp waaw bàyyi fan nga bawoo ñëw màggal si Thiès laa jógee ban kàddu ngay joxe si jàkkaarloo ban kàddu ngay joxe si jàkkaarloo bi nga jàkkaarloo Serigne Saliou borom jamono si li mu defal ndaw ñi sëñ Saliou Mbacké moom lañ jàkkaarloo de waaw kii de moom moom mooy sunu lépp ñun surtout ñun ñi nga xam ne ñooy ndaw waaw sëñ Saliou defal nañ loo xam ne ñun yaakaar danañ dañoo yaakaar kenn kenn ku ko mën a defal nii ñun yëw ñu lool ñun waaw ñun daal moom kii moom mooy Serigne Touba waaw ñun daal moom mooy Serigne Touba moom lañ yaakaar lépp te nag mooy suñu yaakaar adduna ak alaxira ndeysaan alhamdulilah waaw moom lañ yaakaar adduna ak alaxira waaw suñu sedd na guy nag alhamdulilah waaw ñoo ngi ñaan yàlla rek ñu yàgg fi lool di taxaw ak njabootam gépp waaw ñu ni jëriñu waaw ndax ñun ñun ñoo ko topp koy sant bu baax a baax a baax ñoo ngi sant bu baax a baax a ndax li ngeen def moom yàlla na Serigne Touba jotal leen li ngeen bëgg waaw lépp lu ngeen bëgg mu defal leen ko ci borom màggal gi jërëjëf kontaan na baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf mbokk moom jóge ba Thiès Kawsara ñëw siyaar si barab bi nga xam moo di barabu Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké dañuy jël asalaamaaleykum suñu baay suñu baay na ngeen def ñoo sant yàlla fàttali lañ bi man Baara Thiam euh, sunu baay day mel ne yow moom fekk nga lu bari Serigne Touba Cheikh Saliou bi nga xamante ne si barabam ngay waaj a dugg nii waxtu bi wan yëg nga am ba nga tollee si waaj dugg si biir barabam xanaa kontaan rek kontaan rek sama xol bi sedd na guy waaw sant na sama xol bi sedd na guy ci Serigne Saliou mm-hmm. jërëjëf suñu bàyyi boobu daa mel ne xolam dafa dafa xaw a fees Baye Fall bi ñu ngi siyaare Fall fàttaliñ tur bi. man maa ngi tudd Mouhamed Baye Fall. ah Cheikh Mouhamed yow sama tuyoon nag Cheikh Mouhamed waxtu bi yaa ngi waajal dugg si barabu Serigne Saliou mi nga xamante ne moo waxoon wax juré ji. si diggante sëñ Tuubaa la waxoon ci mag ñi. mu ñëw feddali wax jooju jëfe ko yan kàddu ngay am. waaw Serigne Saliou moom auzubillahi mina saytaan rajim yi bismillahi rahmaani rahim yi jërëjëfati borom Touba jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall sa borom waaw ki tedd moom moo waxoon waaw sëñ Saliou daa waxoon ni jox leen man ndaw yi ma def si ñoom li sëñ bi borom Touba defoon si ndaw yi te loolu nag moom moo nekk waaw looloo wér. fu mu ne lan ngay yëg ndax yaa ngi waa dugg si biir barab bi. ni nii moom xanaa di yëg maam Cheikh Rafar saa su nekk barke borom Touba. waaw màggal gi moom kawe na lool lool lool lool ñaan yàlla sunu borom maam Cheikh Rafal dimbali ñu nangul ñu. si liggéey bi rek si barke borom Touba Xaadim Rasul. Mohamed Cheikh Ibra sunu jàmbaar ji bu ne woon cëpp sa kanam nii loo koy wax. laa ilaha illallah muhammadu rasulullah laa ilaha illallah lool moom question boobu diis na de. boo wax du ma seey jërëjëf Serigne Mohamed jërëjëf mbokk mi asalaamaaleykum. ñu ñu ñu ngi jégalu nag wante ay kaddu rek ndax gis nañu yaa ngi si yaa ngi si alxuraan gi. te day mel ne alxuraan gi moom da nga siy fasal jàmbaar ji tëdd fii yan kaddu ngay joxe rek. ngir fàttali mbokk taalibe ka mooy jëmm ji tëdd fii. waaw ah, asalaamaaleykum wa rahmatullahi. waaleykum salaam ñu ngi leen di yéen ñi nga xamante ne yéen ñu dégg seen micro bi di nuyu mboolem boo xamante ne teew na fi. Bichri TV muy réseau boo xam te boo am solo la gis nañ liggéeyam ak taxawaayam tamit ci màggal gi ak tamit ci lu dul màggal gi muy jàllale ay kàddu yu am solo rawat na ci yoon wi di yoonu murit di dalal ay borom nga xam-xam yoo xamante ni ñu gën a génn ci li nga xamante ne mooy tarixa bi ñu nekk di tarixa Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mooy mooy mbir moo xamante ni mbir la mu am solo lii nag day wane ni day wane li yàlla may Serigne Touba di tamit doole Serigne Touba ci àdduna ndax chaque ñi nga am ñu koy gën a leeral di am ñoo xamante ne ñu ngi gën a wane ki nga xamante ne moo di Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul donte kenn mënta wane léppam da ngay commencé ci ñam fi ñenn ñoo continué jëmm ji nga xamante ne moo tax di Cheikh Saliou Mbacké moo nekkoon juróomeelu xalifa Cheikh Ahmadou Bamba ah, nekk na nag jëmm joo xamante ne képp ku di ndaw wala nga di julit mënoo koo ndax ah, di am fukki ak juróom yooyu mu fi def def tey jii nii man naa ne tey ndaw yi di ko siyaar mu leen defaleen démb tey soog a dikk ndax moo waxan jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom da Seex Ahmadou Bamba xam ni suuf defan ci mag ñi mu doon liggéey boo xamante liggéey boo am solo la sax gi mu fi saxam sax la goo xamante ne tey nii da doon dimbali bépp daale bi kon tey yoon la bu yàlla dogalee tey mu nekk ci barab bu mel ni euh, bépp ndaw li ko mën a delloo njukkal mooy nga ñëw siyaar ko ñaanal ko yàlla ñaan yàlla ci yàlla fajal la say aajo ndax ab liggéeyam nekk na xam ne kenn dootu ko fàtte ci àdduna muy taxawaay bu am solo mm. wax yàlla kii daal moom suñu seddoo suñu lépp la man 2006 laa ko mos a laa ko mos a jàkkaarloo ak moom ba may jàkkaarloo ak moom boobu ca mois de la xam ne mu jox ñu benn daane bu ñuy wax meftaaxul mun a nekk a ñëwoon siyaar si ko def ñaari kaar yàlla dogal ñu ban ko siyaar sax ñu ko fekk ca mbaar mi fii ci uh-huh. mu doon jàng alxuraan uh-huh. kon kooku ñun amuñu fayam ndax ah, wax dëgg yàlla daal yal na ko yàlla fay daal. amiin amiin amiin yal na ko yàlla fay ci barkab màggal gi. ci bisub màggal gi. ci bisub juma bi. ci bisub Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ci barkab juma yi. amiin jërëjëf jërëjëf mbokk mi jërëjëf waay jërëjëf. jërëjëf mbokk moomee si kàddu yi am solo yi nga xamante ne yëkkati na ko seede ko fàttali mbokk talibé Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké si liggéey bi nga xamante ne liggéey na ko waajuram si wax jooje yi nga xamante ne waajuram defal na ko si si mag ñi ba mu nekk xalifa Serigne Touba mu yeesal wax jooje ndax loolee Serigne bi daf ko confirmer si yu bari si xel kom si dong yi même si saayir sax am na ay borom doole yi nga xamante ne lépp si jamonoy Serigne Saliou lañ teddee te lépp génnul si liggéey bi nga xam daf ko doon si waajuram bu góor boobee. mbokk yi ba tey di leen fàttali ñu ngi fii si jumaa ji si suba bi nga xam mooy suba yi màggal tubaa nga xamante ne mooy bis bi nga xamante ne Serigne bu mag moo ko woote woon wax ne képp ki nga xamante ne sama mbég sa mbég la ñoo santale ma suñu borom tàmbale si ginaar ba si gëlëm waaye yi bari na. jumaa ji takku na si ay nit barab yi fees na rawatina barab bi nga xamante ne mooy barabu Serigne Saliou Mbacke gis ngeen mbokk yi ñu ngi di wutal barab bi wante lu ñu ngi rang ku nekk am nga benn impression sa xol bi nga xamante ne am nga yéene fësal ko am nga yéene seede ko am nga yéene génn ko xam naa dañuy jël borom suñu suñu suñu suñu jëriñ asalaamaaleykum. waaleykum salaam. fàttali ma tur bi. Moussa Badiane. si Moussa lan ngay yëg waxtu wii nii. li ma yëg. mbégte ak kontaante rek. Mhm. ci bés bu mag bi nga xam ne sëñ bi. Mhm. moom moo ko liggéey. Mhm. ne ñëw leen sant la ma ko. Mhm. ma ñëw pour sant la ko. Mhm. ma ñëwee booy dugg barabu Sëñ Saaliw. sama xol day gën a fees. day gën a tooy. waaw ndax si Sëñ Saaliw ni mu bëggee woon ndaw yi. contentement bu rëy laa ci am. jërëjëf jërëjëf sëñ Moussa jërëjëf mbokk moome xam naa dañuy taxaw fi tuuti asalaamaaleykum sama sëriñ. fàttali ma tur bi. moo May la. sëñ Mor waxtu bi la nga yëg si jàkkaarloo bi nga jàkkaarloo barabu Sëriñ Saaliw. xanaa kontaan ci rek ak yàkkamti woon ko rek. waaw sëñ moom daan nekkan euh, maanaam sëriñ mag ndaw ñëpp rek moo tax saa ñëwee daal il faut bala noo dem rek ñu jéem koo siyaar si daal waaw kilifa goo xamante ni si moom bu daan ñaax ci jaamu yàlla sax moom moom mi ñaaxe sax da nga yërëm waaw loolu tax moo tax daal saa bu ñëwee ñu xool ñu jéem koo siyaar doo ko dem daal sëñ Mor sëriñ Saliou bu jékki-jékki ne cëpp sa kanam ni jàkkaarloo ak loo koy wax ah xanaa kontaan rek koo gis moom da ngay kontaan rek daa yaakaar. ndax amul dara lu luñ ko war a waxaat ndax ñoom jàngal nañu la waaw loolu daal laa yaakaar. jërëjëf mbokk moomee si kàddu yi mbégte yi nga xamante ne fësal na ko ndax nee na moom ba mu dëggee fi tànkam ba jàkkaarloo barab si la mbégte boo xam foo ko natt wees na ko mbokk yi eh, ginnaaw bañ nekkee fii barabu Serigne Saliou dañuy xool yeneen barab yi ndax barabu Serigne Mourtada Mbacke mu ngi fi barabu Cheikh Mouhamadou Moustapha mu ngi fi barabu Cheikh Mouhamadou Fadal mu ngi fi barabu Cheikh Abdou Lahad mu ngi fi barabu sëñ Abdou Khadir Mbacke mu ngi fi ak barabu sëñ yu mag rawatina barabu Cheikh Ibra wante incha allah danañ dem si barab yooyu yëpp même waxtu bi bu ko mateewul dinañ jéem a xool impression yi nga xamante ne mbokk taalibe jëwee nañ ko si barab yi nga xam ne dugg nañ ko siyaar ko ak boor bi nga xamante ne moo wër jumaa ji ndax xam ngeen ñeenti koñ yëpp dafa jublu jumaa ji te ñeenti koñ bu nekk daa amay kërub dal amay kërub kilifa am mbokk taalibe waxtu waxtu bi ku nekk benn si ñeenti koñ ngay jóge ñëw di siyaar si ki nga xamante ne moo la andi Touba ñëw di siyaar ki nga xamante ne moom ngay bëggee ñëw siyaar ki nga xamante ne moo si lépp ñëw di siyaar ki nga xamante ne saa boo ko ñaanee sa ajo si barkeem si barkeem suñu borom defal la ko kon boog ñu xoolaat yeneen mbokk taalibe yi ànd ak sama cameraman Serigne Khadim Gueye